asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ziyaara ginnaaw bu ñu leen nuyoo ñu ndokkeel leen bu baax a baax ci at mu yees mi nga xam ne moom lañ dugg muy atu 1443 ginnaaw gàddaa yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy ñaanal mboolem jullit yi atum jàmm atum naataange atum taw tawféex. ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Bachir xalif général de Mourides mu yàgg fi lool te ànd ak wér mbokk yi noonu lañ ko ñaanalee mboolem kilifay diine yëpp ñu ngi fii ci Touba Mbacké ci wetu jumaa ji ci buntu résidence Khadim Rasoul ngir waajal. bis bi nga xam ne Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir moom moo ko santaane muy bisu xasida ñoo war ko amal àllarba fukki fan ak benn ci euh, août 2021 war a yemook ñaari fan ci muharram di tamxarit atum 1443 ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis boobu nag ci quelques heures rek laataa ñu koy tàmbali ci dernier réglage yi mboolem si yi nga xam ne moom lañ euh, war a amalee li nga xam ne moo di njàngum xasida gi ndax dañ ko war a amal ci dëkk bi yëpp mu di Touba Mbacké ci biir réew mi ci bitim réew waaye organisation bi fii Touba nekk na loo xam ne nos nañ ko tënku ko organiser ko noo xamante nii lépp teg nañ ko ci dernier réglage yooyu lañ fas yéenee ànd ak yéen fii ci jumaay Touba ji muy fi nga xam ne fi la am Amsatou Mbacké moom Serigne Sonia bi fas yéenee fi nga xam ne it moom moo di ci buntu euh, kër Serigne Fallou Mbacke gi nga xam ne bâche bu mag a fa teyit euh, waa daara Hizbut Tarqiyyah fas yéene fa jànge ak yeneen kuréel yi noonu lañ ko fas yéene àndee yeneen jotaay ba ci biir résidence Khadim Rasoul ci installation yi ci dernier réglage yi lépp rek ngir def seen kéemtalaay kattan ba bis bi nit ñi di ko mën a dund en temps réel ci retransmission en direct yi ak lépp loo xam ne jëm na ci njàngu xasida gi nit ñi fooy fuñ mënta nekk di ko mënta di ko mën a dégg kon mbokk yi ñu fas yéene ànd ak yéen fii ci Touba Mbacké ci wàccaayu bis xasida bi ndax li ñu ko waxee sànq rek ay heure rek moom moo ci des ci li nga xam ne fu la mbooloo mi toll ci organisation bi ci li nga xam ne moom moo jëm ci dernier réglage yi laataa ñuy tàbbi ci bésub xasida bi kataba rabbillahu annani arum ridaahu minhu bi wajhil karim kataba rabbillahu annani arum ridaahu minhu bi wajhil karim ilayya awsala alkitaaba naasixa li gayrihi fasaara qalbi raasixa nasaxa bi maa lam yakun saxiixa waxaada li tafsiira wa tasxiixa dalika fadlullahi ni'mallahu rabbi wala ilaha illallahu ixtasani bima yaduumu ajaba fii abadin lissaalihiina nujaba fii ci penk jumaa ji fi nga xam ne fi la sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Sohaybu ak waa Ahlu Xasida fas yéene féete ngir dundalee fii ndigal loolu nga xam ne sëriñ bi euh, joxe na ko gis ngeen ñu ci dernier réglage yi ci installation yi moo xam sonorisation moo xam électricité moo xam lépp loo xam ne jëm na rek ci li nga xam ne moom moo di transmission bi en direct ngir euh, taalibe yi fépp fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ci di dund événement bi en direct ñu ngi kenn ci ñi nga xamante ni bokk nañ ci ñi nga xam ne ñooy taxaw liggéey bi ci organisation bi ci communication bi muy Serigne Modou Faye Serigne Modou ñu ngi ñëw fekk fi nga xam ne moom moo di ci euh, bâche bi te mën nañ xam liggéey bi fan la toll ci dernier réglage yi ndax mën nañ ni ay waxtu rek moom moo des ci ngir ñu mën a euh, jëfe li nga xam ne mooy ndigalu Serigne bi. macha allah jërëjëf euh, Serigne Fallou ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax tey rafetlu liggéey bi. waaye di santaat bu baax di santaat sëriñ bi bi ñu boolee ci liggéey bu mel nii euh, di wax alhamdulilah mel ni ñu woon euh, ci wàccaayu liggéey bi nga xamante ne mën nañ àdduna ñoom ñoo koy waajal euh, fi ne nii fi ñu toll nii mën nañ ne xel yi dal na bu baax ci ni nga xamante ni noonu la ko jërëm jëwriñ yi nosee woon bu ñu nee jëwriñ yi nag liggéey bi buñ ci jiitalee sëriñ Amsatou Mbacke moom sëriñ Chouaïbou bu Serigne Youssou Diop kenn ku nekk gis taxawaayam ak ndigal li nga xamante ni Cheikh Mouhamadul Mountakha rotal na ko ci moom mu ànd kook mbooleem dongo yi nga xamante ni it ñu ngi fii ci biir Touba ak li génn Touba ba tey mu nekk ci moom it uh, di coordonner liggéey bi ba lépp fi ñu toll nii mën nañ ñëw mucc nañ ayib fii ñu nekk nag nga xamante ni bu ñu xamee dara ci bis bi yaakaar naa uh, xam-xam bi fii lay ëppee muy ci wàllu penk bi yi nga xamante ni fii la sëriñ bi fas yéenee nekk mel ni sëñ Fallou fii ñu taxaw. fi lañ ne fi la Serigne Amsatou Mbacke moom Serigne Chouaïbou bu fas yéene nekk ngeen gis ni mbokk taal bi waajal nañ ko ci wàccaay yëpp nga xamante ni tey jii comme waxtu nawet lañ nekk gis nga nii ñu ko waajalee am na tey bu doon taw sax Euh, waajal nañ ko noo xamante ni kilifa yi du am benn jafe-jafe ci ñoom donte ndox mi it léeg-léeg mën na jaar ci suba yooyu yëpp yaakaar naa waajal nañ ko ci fànn googu ci organisation li jëm tamit ci wàllu communication bi nga xamante ni ñun ponk biñ ci yoree nga xamante ni mooy signal bi nga xamante ni moom moo war a jóge fii euh, képp koo xamante ni yittewoo na ko ñu war ko koo jox côté boobu it féete na boor seen kon mbokk ñoo gisandoo li xam ne moom moo di wàccaay wi Euh, ni nga xam ne lañ ko fi amalee euh, jumaa ji ak li ko wër nga xam ne fépp def nañ ko ay tente ngir waajal mbokki taalibee bu ñëwee mën na dundal li nga xam ne moom moo di bis bi ci njàngu moo xam rajas la durus ba ci njàngum yëkkati noonu lañ ko fas yéene amalee ca Daarul Minan foofee euh, am na suñu naataango boo xam ne mu ngi fa muy Baye Samba Seck ñu jokkoo moom rek mu wax ñu li nga xam ne moom moo am jamono bi ca Daarul Minan ci wàccaayu bisu xasida kon Serigne Samba Seck ñu ngi lay nuyu baax la ziar nga indil ñu leeral la ci li nga xam ne moom moo am jamono bi ca Daarul Minan ci wàccaayu bis bi jërëjëf Serigne Fallou comme ni nga ko waxee ñu ngi fii ci diwaan bu Touba Daarul Minnan fii nag liggéey bi euh, mi ngi avancé bu baax a baax euh, ñi nga xam ne ñooy taxawu liggéey bi ñooy waa Ahlul Minnan ànd ko ak ñi nga xam ne ñooy waa Isbu Tarxiya xam nga liggéey bi Serigne Mountakha Mbacké xalif général kullu murit euh, daf ci jiitat ki nga xam ne mooy Serigne Amsatou Mbacké Souhaïbou moom it mu ànd ko ak nga xam ne ñooy waa Ahlul Xasida ànd ko ak ñi nga xam ne ñooy waa Isbu Tarxiya ñoom it yaatal liggéey bi ba kenn ku ci nekk mën a gis sa bopp ci mbir mi loolee tax fii ci diwaan bu Touba Daarul Minnan waa Ahlul Minnan ñooy tax taxawu liggéey bu nu mel fii nag bâche yi nañu lool boo xoolee fii ma taxaw nii am na ci ñaari bâche yu mag lool euh, benn bâche bi ci laa taxaw nii euh, mu nekk bâche boo xam ne ci la ñu préparé ñi nga xam ne ñooy kuréelkat yi waaye nag ci beneen boor bi ci la ñuy préparé ñi nga xam ne ñooy duruskat yi waaye nag li ji bëri na ay bâche lool waaye bâche bu ci nekk nag daal daal dinañu koy def euh, répartition boo xam ne góor ñi danañ mën a toog ne jigéen ñi mën a toog ne loolee bokk ci liggéey bu am solo bi nga xam ne waa ahlul minan ñu koy amal fii ci diwaan bu Touba Daarul Minan ba tey it boo duggee ci biir kër sëriñ bi bâche yi bari nañu fa lool lépp di waaj bés bi waaye nag daal di jëmmal li nga xam ne mooy bés bi kon fii ci diwaan bu nan Darou lu Ahlou nan ñu ngi fiy def liggéey bu am solo lool. waaye nag bépp matériel boo xam ne danañ ko woo ci bés bi ñoom waa Ahlul Minan bàyyi wuñ ko boo xam muy caméra moo xam muy micro ak lu mu mën ci doon ànd ko ak équipe technique yu xarañ lool ñoom nag ñooy ñi nga xam ne ñooy taxawu liggéey bi waaye nag fii boo taxawee da ngay xam ne ambiance bi macha allah ndax nit ñi bari nañ fi lool euh, macha allah fii daal da taxaw euh, di dund bés bi euh, di xam ne nit ñi murid yi ñu ngi waaj bés bi bu baax a baax fii ci diwaan bu Touba Darou Minane kon sëñ Fallou dama lay bàyyi rek liggéey bi incha allahu bi am na jotaay am solo solo yoo xam ne moom it fas yéene nañ ko fi amal mu nekk jotaay boo xam ne ay euh, boromi xam-xam wala ay bindkat ñoom ñoo ko fas yéene seq ngir bindaat li nga xam ne moom moo di ay xasida nekk euh, ñoo xamante ni ñu ngi leen waajal fii ci résidence Khadim Rasoul mu nekk ñoo xam ne bi ndigal li wàccee rek tàmbali nañ lu ni mel ndax am na xasida yu bari yoo xam ne jot nañ koo bind lool nag liñ fas yéene la ci bésub xasida bi li to li ko ci euh, commencé ci set heures ba 17 ñoom it fas yéene wu arrêté benn yoon dañoo fas di bind ay xasida ci li muy takk loolee ginnaaw bi nag daañu ko jébal ki nga xam ne moom moo di Cheikh Mamadou Mountakha ki nga xam ne moom moo di Serigne Cheikh Mbacké moom Serigne Abdou Latif ñëw na visité ko rafetlu ko bu baax a baax a baax xam leen ne lii nekk na loo xamante ni lu am solo la ci yoon wi waaye day gën a toppaat njeexantal euh, ki nga xam ne moom moo di Cheikhul Khadim te kuréel gii koy sàmm nag te di ay ndaw te da ko jaarale fii ko mag ñi doon jaarale buñ fa duggee dañ leen a gërëm lool sant leen suñu xol sedd ci ñoom ndax ñu xam ne lii itam mooy li neex Serigne Touba Serigne Mountakha lii rek la bëggoon bay woote bis bi ak di soññi ci yu mel nii ndax jeexit yi nga xam ne Serigne Touba ko fi andi woon mosu fi am te mu war di dund war di yàkkale ko saa ne feeg ñu di ko sàmm dañuy gëm ne ndonnu teef la mi ngi dox te feeg ndonnu teef laa ngi dox dañuy xam ne mbirum sëriñ bi lépp day gën di jëm kanam nag naam xam nañ ne mbirum sëñ bi mënta dellu ginnaaw day jëm kanam saa su nekk waaye lii de dal xel gis ni li koy jëmale kanam ñi ngi ci day dal xelum ñi ko waroon sàmm wala ñi ko yéene wala ñi ko bëgg te buñ ko gisee seen xel day dal man de sama xol daje sedd. sëriñ Youssou Diop mi nga xam ne mooy responsable moral bu Daara Hizbut Tarqiyyah ci wàccaayu bésub xasida bi mi ngi leeral euh, moom it euh, ginnaaw bu mu nemmee ko jotaay bi nga xam ne fa la ñu amalee mbindum xasida gi ne jël nañ mboole matuwaay yi ngir bi mën yemb lépp loo xamante ni laaj na rek euh, laaj na ko muy bésu xasida bi def nañ ko ci ngir bés bi mën a yemb ñu amalee ni nga xam ne noonu la ko Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir santaane waaye it rafetluwaat bu baax a baax ni xam ne noonu la ñu amalee mbind mi fii ci résidence Khadim Rasoul ginnaaw bu mu ko nemmee ko ñu ànd teewlu kàddu Serigne Youssou Diop mi nga xam ne responsable moral bu daara Hizbut Tarqiyyah dama gën a yëgaat rek ne sëriñ moom li mu am suñ borom moom rek la ko defal euh, moom moom léppam xar la léppam kéemaan la ndax euh, moom sëñ Tuubaa moo daan def xëy bindulu kaamilu alxuraan ci benn bis moom sëñ Tuubaa moo ko mënoon euh, moo daan wax ne dañ ma bindal téeméeri kaamil ñu bind ko téeméeri kaamil tey ji nag nuuru daare ne di téere boo xamante ne su sëriñ bi daan wax bu ne sama téere bi rek dañu xam ne moom lay laaj euh, tey jii bu ñu amee ay ndaw yoo xamante ne seen dañoo dañoo dañoo judd ci yoon wi euh, doon ay ay ñoo xamante ne it dañoo nàmp yoon wi waaye gëm ko dund ko dund ko bu ñu ko dund jublu sëriñ bi euh, ba tey jii ñu tànn ci ñoom ab lim boo xamante ne bisu xasida bi ñoom dañuy bind rek bu ñu mënee bind limu téeméeri nuuru daal ñu ànd ak yeneen xasida yu bëri yu ñu bind. yoo xam ne lépp mbindum loxo la mën ko jébbalaale sëriñ bi loolu du wane dara lu wane na rek sëriñ bi la suñu borom nangul. waaw ñu ngi sant nag réglage yi moom lépp aw na yoon te dara waralu ko lu dul ak nos ndax bi ñu yàlla suñu borom boole ak sëñ Hamsatu Mbakke euh, moom njabootam gépp ak nun dañoo doon lenn waaye yamu ci mboolem ñi nga xam ne ay kuréel lañu ne ci dëkk bi. ne ci mbooloo yoo xamante ne ñii ci sécurité la ñuy liggéey ñii ñoo yor lu mel ni jumaa ji waa mu xadamatul xidma ñii seen liggéey dafa jëmaat ci yeneen fànn ñii yor ay wàññ ñii yor leneen ñëpp mel nii benn bopp lañu te li gën a yéeme mooy barrière bu doxoon ci diggante taalibe ak moromam Cheikh Mamadou Mountakha dindi na ko kenn ku ci ne boo gisee sa morom yaa ngi koy naw yaa ngi koy bëgg yaa ngi koy xemmem yaa ngi bëgg mel ni moom sax te loolu dara waralu lu dul ndimbalal yàlla moo ñëw kon mbokk yi li mooy li nga xam ne moom lañu leen euh, indiloon ci wàccaayu bésub xasida bi rek fas yéene ko ànd ak mbokki taalibe yi ci retransmission en direct bi ak lépp loo xam ne ay reportage la ay temps fort fii ci Touba ak lépp loo xam ne rek dana fi bàyyeekoo ngir dundal ko ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi santaane rek ñu santaan mbokki taalibe yi bu baax a baax ñu sàmmanteek ndigal li takk masque yi ak lépp loo xam ne rek euh, loolu la sëriñ bi santaane rek ñu defee ko noonu te xam ne loolee moom mooy tax ñu mën cee jariñu dig leen daje incha allah ci yeneeni reportage fii ci Touba Mbacké wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. law tawajjahtu xariban waxdi bayna dawi taxaalufin wa jaxdi kitaabati kabatatil kataa'ib wa dahdahat man laa yuraa bi taa'ib fadaaniya llaahu bi man qad kafaru wa xasadu wa jahadu wa nafaru يقيني الذي بنا دري هدم وكل من مال لغيري انصدم أكرمني الرحمن والرحيم وانقاد لي بلا انتهى ترحيم لا ريب في كون مكاتبي لدى ربي جنودا منه صفت خلدا bi wa